Salut les amis de eSport TV et de Babo Showa. Merci encore de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés. Merci également d'y baisser les commentaires. Plaisir renouvelé chaque fois et d'y partager une information et un box sénégalais fait pour les Montenegro 14 régions du Sénégal. Rokhroukhadi, Gorgokhadi, ñi Lidia, leen di également ci lal hôpital et ci kër yi février. feebar. yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jàmm ñi nekk ci kaso aussi erreur judiciaire ak génne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen ñi déddu àdduna suñu borom xel leen àjjana firdawsi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des sportifs et l'actualité en continu gars actualité bi ñu fas yéene waxtaanee kii di Abdoulaye Sow mi daal wax ne li di ay lobbying ñi ngi am pour daal di tànn futur entraîneur waye nak ñom fédération amna taxaway buñ bu ci am lépp ñu fas yéene ci dox leen ay détails indi ci ay leeral mais aussi leen invité bu leen sétane vidéo ci sportif yi ba paré ngeen dem ci Baba Show seetaan actualité jëm ci wa ñi di Burkina Faso mi nga xamné ne qualifié nañ Sénégal ban taxaway la ci am Sergio Desmi attaquer attaqué Xavi ak également ki nga xam Rodrigo jël une décision ci ëllëgam à Real Madrid nous faisons encore ko pendant ce temps l'entraîneur intérimaire euh, Boua euh, Angleterre plutôt tey que gis ngeen ko aujourd'hui Amad Ndama mais son entraîneur intérimaire n'est pas fini fi ne euh, pour l'équipe. bi. avons xaar keneen ku jël ay trophée yu bëri mën qui yor kii dit di di Valverde nee hésité na lool lool lool numéro 8 bi bi fi Tony Cross baye parce que néna euh, pression la te ki yor la limite du football ci Real defaat ko du yomb mais là néna na hésité na lol finalement mu ne na parce que ki nga xamné tamit moko jox ah, di Tony Cross nek légende nek honneur ci moom tette ko accompagner ko donc tay mom xam responsabilité bi numéro bi di laaj motax mu fassé yéene ko jël wane ci lepp lo xamné rek muy kéntalaay wa Everton ñom nak waxaat nañ ci blessure bu kii di Iliman Ndiaye ñoom nag ah, ñu ngi sukkandiku ci li nga xam mooy suñu confrère yu euh, di sport wax ne daal Iliman Ndiaye problème mu cuisse Pod pooj bi douleur yi muy ressentir moo tax tey entraîné wul ëllëg daal li ko waxé dinañ xam ndax day jouer wala du jouer Aliou Cissé jóge équipe nationale du Sénégal way fi mom il est toujours présent parce que dañu wara tan kan mo koy wuutu ci bangu équipe nationale du Sénégal pour l'instant, ki nga xam ne donc Pape Bouna Thiaw lañu jox mu dal di nek intérimaire bi waye ki nga xam donc Abdoulaye Seydi de vice président bu fédération nee na lobbying yu bëri mi ngi am pour daal di euh, proposer leen euh, sélectionneur bu bees pour tamit jéem a imposer kenn mu naa nekk sélectionneur bu bees waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñooy fédération bi nee na gisaguñu oo kenn waxaguñu ko kenn liñ ci mën a jàpp rek ne mooy ne ñoom daal fas yéene amal euh, ab waxtaan ak waa ministère des sports jébbal leen profil yi nga xam ne moom la ñu daal di tànn pour daal di tabb ci nag kan moo nekk kan moo nar a nekk plutôt le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal tur yi ñoo ëpp lu ñuy génn <clears throat> gannaaw muy Omar Daf ak également kii di Habib Bey, et aussi ki nga donc Hervé Renard lobbying bi Fanla, fan la man nag dama leen jox yenn détail ci ki nga donc Pape Bouna Thiaw Pape fédération musta décision écarté ko te bu leen xaar xaar xalaat Pape Thiaw ñu génne ko ci équipe nationale du Sénégal soit day nek entraîneur adjoint wala moom mu continuer ak li nga xam ne donc équipe nationale du Sénégal parce que Augustin Senghor ba muy def loolu ci lu leer la ko parce que Pape Thiaw aujourd'hui nekkul koo xam ne quand même da koy jox ne ko entraîner euh, mu nekk deux matchs trois matchs après nga dem sa yoon quoi ñu def la noonu parce que booy dégg seen wax sax ñu ngi naan ñoo sacrifier kii di Pape Thiaw donc l'objectif de fédération mooy que ne déjà soit ñu maintenir Pape Thiaw au poste de sélectionneur wala keneen kuy ñëw day ñëw former duo ak Pape Thiaw pour yoral li nga xam ne mooy équipe nationale du Sénégal mais génn Pape Thiaw ci équipe nationale du Sénégal moom gars yi ne nii bokkul ci planu fédération moo tax nag fédération bi tamit amoon na ab xuloo seeni biir ba Aliou Cissé ci banque bi ñeen ci DTN bi plutôt ci comi comex bi comité bi dañu woon na kii di Mayacine Mar ko mooy DTN jël occupé intérim bi donc ñooñu bëgguñu woon Pape Thiaw nen sax day toog ban di laal l'équipe nationale tax ci parce que dégg na aussi gars yi naan non moom mu nga toog muy toog muy dox lay def et tout mo taw ñu jital Pape Thiaw Mayacine nek ci ginnaaw en tant que DTN di accompagner pour également jéem euh, permettre Pape Thiaw mu dox bu Pape Thiaw échoué nag ñu ne Pape Thiaw échoué bu Pape Thiaw réussi aussi ñun wax ne waaw maam Mayacine Mar taq na ci rip loolu mbir yi demee mais pour l'instant dal bu ñu sukkandikoo ci li Abdoulaye Seydou Sow wax moy que ne profil yi nga xam dal euh, mom lañu bëgg jël bu ñu jotee dañ ci waxtane ministère proposer len ko waye it am lobbying yu bari yo xam dal japp na ne mom daal daal fi ne ñu ngi pousse ku nekk bëgg indi sa sélectionné ne moo yor équipe bi li nag les amis moo nekkoon information yi ma leen bëggoon jox saas su nekk la ñu wax rek ngeen wéy di like wéy di abonné partager vidéo yi likez bës ci cloche de notification bi merci encore pour tout pour les 200 000 abonnés parce que defuñu leen luy booster dara yéen a ñëw spontanément et li ma wax saa su nekk su baaxee ci la bonus ñu la on se donne rendez-vous tout de suite sur Baba Show jaa ngeen jëf